suñu doom ju góor ji yow boo ne maa ngi dox ci social ñu gëm ko ndax abi bi muy doog a ñëw da dañ ne damay suqali randu leen moo ne fi mu ne da dépassé nga randu leen xam naa ni quatre-vingt-dix-neuf quartiers yi ci kees yëpp ñu ngi fii te madame Rose gis nga ñi fii ñëpp ay présidente rek a fi ne Habib nag di ñu jàppale te yàlla tax ku ci am dëj Habib man mii lay jiital pré coordinatrice a ngi nii boole noog lii ñu dem def def délégation dina yóbbu enveloppe ku ci am conférence dina yóbbu envelop ku ci am ngénte dina yóbbu enveloppe xam ngeen di dàq loolu yëpp côté santé bi moo ne nit de jaborde jàmm euh, bu amul wér yaram amul dara la santé avant tout mu jël nag urbi mutuelle de santé bi nag indil nu ko nag daal di ni yaa ngi nii bu kenn fay dara ku feebar ma faj la boo indee ordonnance ma jënd gis nga bureau bii dañuy xëy di indi ay ordonnance di indi ay ordonnance di indi ay ordonnance rek ba ngoon jot te Habib du rejeté kenn du delloo kenn Habib bodduwul kenn <coughs> Habib xam nga kan les deux minutes ñooñu la Habib gën a favoriser boo wax gisee na nga foo yooyu kooku la Habib gën a jàpp ñii ñëpp ku ci gën a sañse rek Habib xoolu de xam nga ku mu gën a xool borom carax bu dagg ba kon yow Habib yaa rafet jikko Habib yaa yore jukkoy sëñ Babacar sa turandoo Habib jàmm Habib safoo Habib faale Habib yëg nit di def action ci jumaa yi di def action ci jakkay di def lu bax nak ci néew di doole babakar Pascal ya bax ya xam li ngay baxé yow sa gi yalla na bur yalla fay yalla la sëñ babakar teyel bopam kattanu yalla suñu borom li nga yóotu yalla la ci bur yalla jotale may nuyu nak sama dom batay di monsieur le mère ku bax nga yaangi jappale nit ñi yaangi jappale jigen ñi yaangi jappale ñun ñi ñep sa mbolo lañu li ma ni meeru Thiès yow yaay suñu gouverneur ndax ñun yow la ñu gis suñu jaaxlee ci yow la ñuy ñëw bu ñu soxlaa ci ñaw yow la ñuy ñëw te gàntalagoo kenn yàlla la buur yàlla jàppale. di sant ñëpp di gërëm ñëpp lii may wax ni waa jigéen ñi ñëpp ñoo ma ko wax loo yaa ngi fi bàjjanu gox yaa ngi fi te ñoom ñëpp social rek la ñuy dox. ñoom ñëpp nag abib rek moo leen woo Habib rek moo leen ñor Habib moo leen jàppale Habib moo leen di dimbale Habib kan yàlla bu ñaan yàlla tépp Habib euh, xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak mag Habib li ngay yottu yàlla na la ci bur yàlla jottale waane yàlla nañu yàlla bàyyi ak madame Rose mi ba fa nga bëgg ju fa yàlla na fa bur yàlla boo leen toogee yéen di gërëm waa Thiès sama maam am kër fii Thiès man sama maam moo ma booleeg Rose Rose bokkuñu parti man socialiste la je suis de Khalifa mais doxuma ci politique man bu weeru koor jotee damay laxasaayu doon ab taalibe dama koy seedeel nag ci kanamu Rama mii Rose moo ma présenté Rama Rama dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay ndax sama maam dafa ma yar mu nekk booy ànd xawalal ki la bëgg boo àndeek sa nit tamit na tok fi nga tok ca gannaaw di xool ki koy xoyelu ak ki koy ŋaañ rama boo ma doon siis ci rose di nga son ndax man taaliba sëñ babacar si laa sëtu al amin laa tiituma ragaluma ndax koor rek lañu am ñun tarixa bi bark dem boo njaay dafa teg liste ne ma koy jox ma ne ko sama yaay libu la di sëti sëriñ dakaaru waaye sama maam laay njëkk a jox ma jox téeméeri pak en cent pak ci wolof ci jox 100 pak buu di saxo ca Mansour sar bi seuy doomu seigne Cheikh mhm. Muniru sar Farsi malik moko jur Farsi moy taw alaaji malik Rose kooku la jox mom do wax legui telephone parce que ki taxaw tante ci mbedd dafa bëgg nit ñi gis ko da ngay tëju sa neek goudi ma jël sama taxi jógeegal tapé ngay compter ba mu nekk 1000 pack kooku da ngay def ta yalla tax ben boisson bo ci jox doomu adama mam Alpha si moom ko wax jankatu dara la nee bu ci xali bi naanee tàqamtiku yaay ja contane defal na juróom-ñaar fukki julli yaq rose macha allah la ñaat julli may wagne ko nak gërëm monsieur le maire avant d'être maire tu étais conseiller je suis conseillère rose elle est conseillère je suis du corps médical rose elle est du corps médical bu ma oowaatoon tey ba fajar damay dem ndax social ku koy def koko jar kii dafa wax lu am solo Habib li ngay def yàlla rek a tax ngay def da ngeen yàlla daal moo leen boole yaag docteur da ngeen a bokki affaire kon nag ñun tamit yéen jigéen ñi lépp lu ngeen bëgg man tam ci développement incha allah formation man dinaa ñëw jàppale leen ci bu dee micro jardinage dinaa leen indi bu dee amu leen ko wala bu am ñu ko soxla ci groupement yeneen yi dinaa leen indil euh, Babacar mooy le coordinateur ñu installé leen ko ba tax wax deug mbay mi tamit amna ci solo lolou mom inshallah allah leen ko dig parce que man lañ def secrétaire national micro jardinage kon bu yoon jeexul wax suru jeex kon dañ leen di gëreum mais monsieur le maire ma ngi leen di gëna gëreum parce que li ngeen fi wax waxu deug la waxu xol ngeen fi wax man gis nga buma gisse kuy wax deug rek dang koy xam madame la présidente ñu ngi leen di ñaanal sen euh, makan mi mu leen jox yalla nañ sen mour la yalla nañ ko fekk ay dewen dewen dewen da nga ni social ngay def.

Thiès ñetti lycée mo fi am lycée amarin Ndack Seck lycée Malick Sy ak également lycée technique lycée bu ci nek premier tranche bi 500000 francs lañ fay professeurs yi moo génné ci poche am ba paré fay leen pour ñu défal élèves des cours de renforcement sama loxo laaw gis nga li ñuy joxé ni ndëgg ni daal mi ngi woon toll ci 50 54 54 on est à 175 sacs yo xamanteni da koy jox également suñu ay nawlé suñu ay mbokk suñu ay membre du ñu gis ni loolu yokkute amélioration la bo xamanteni mom lañ noté pour cette année. gis nga ñi ngay gis ni c'est les présidentes de de celui. la majeure partie de ces groupements ont été financés à coût de 100 000 francs par lui-même sur des sur fonds propres. gis nga financement yooyu tey boo ko xaymaa c'est à coût de sept millions cinq cent yoo xamante moom moo génn ci poche boppam financé nañ ko ñoom léegi damaa bëgg a xam est-ce que financement yooyu mës na leen cee laaj intérêt est-ce que ban leen financé ba léegi wax na leen kaa leen remboursé est-ce que ban leen financé ba léegi ñëw nañ seesi leen lu ngeen ci def donc jàpp naa ni da nga nekk sa yoon daje koo xamante ni aussi yéen a bokk yoon encore une fois de plus mënuñ ko cee bañ a seede parce que c'est des chiffres concrets parce que dañ koy vivre au quotidien maanaam Rose. li ñu boole tey laa gën a cay laa koy doo ko jàpp ni dëgg la ndax soxna si li mu wax dafa ne ma Abdou Aziz fi mu jaar ak ma Abdou Aziz ak li mu bokk ma Abdou Aziz ma jógee voyage keroog Babacar mii laa àndal ñu toog mu wax ma ñu wax mooy ñaanal di ma laaj ci loone ma wax ko ko mu ni ma bu dee dëgg la ci yow kenn du la ñaanal balaa at mee ñëw dina yokk bu du dëgg ci yow li nga yor bu jeexee nga torox loolu la leeral moom tey ci sama digganteeg Rose kon mbokk gi foofu rek leer na ah ñëwuma nag taxaw ne kees maa ngi nii commencé dem damaa ñëw am fi mag boo xam ne wax na sama kóllëre ak moom ndax sama digganteeg réseau bi léegi ñaari at la toll fii laa ko bàyyi woon tukki wax ko li ma bëgg. ànd ak moom ñu bëbët ci dem ci ba Tiwaawan seet sëñ Babacar waxtaan ci ak moom mu xaalal ma yoon bi ma dem yoon bi doon doon bu yoon bu gàtt ma suñu borom indi fa xéewal xéewal googu ma ma ko ñëwee la ma ko sàkk woon laa ci def ba may delluwaat Babacar mii la àndalaat yàlla def loolu doon dëgg ma nekk ci di ci dox ànd ceeg sama seex du ma ne sama frère Alioune sama seex la sama seex la ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk gëm-gëm ndax li muy wax fii moom la wax toujours kenn falu ma yàllaa ma fal dañ ciy dox nii rek ñun ñëpp suñu borom pare na bu yàgg dañuy jéem rek li ëpp solo rek mooy xool yi wàcc ñu doon benn dimbalante ndax toujours dama leen koy wax yéen ñi fi toog yéen jigéen ñi dama leen naan toujours boo leen xool ci man doo leen doo leen xatal da ngeen yaatal. parce que man su ma xataloon damay yem ci gox bi ma dëkk mais damaa tëb gox bi ndax dam gox bii dafa am ñoo bokk ñu bokk ñoo xam ne ñoo bokk papa ñii ñoo samay doom tànt ñii samay ndijaay ñu dem ci yeneen gox bu ñu déggee li baax li am fii bu ñu ñëwee du ma ne leen si bokk parce que maa say mbokk moom jarul ngay jël keneen moo tax may yaatal ko ne dañ leen bokk tey mbooloo bi li muy yaatu yaatu yëpp ñi ma bokkoon ndey ak leen fi parce que am na ci leen lu ñu taxawee ko dox samay doom bàyyi ngi fi mais mel na ni ñoom ñoo fi nekk ñëpp mais man xam ngeen ni man ak sama sama mag yi ma bokkal nday bay ak yeen la yam li ma mën ci yeen sax mënuma ko ci ñoon ndax xam naa ni ñoom bu leen soxla mën nañ ko am mais xëy na yéen it leen ko am mais yeen ñi ci ëpp ci yeen togo leen fi pour seen bop da ngeen fay tok pour ay nit te man lool la yaakar te loolu ma boole ak yeen ndax nit ki ñu dimbal ku mu dimbalé tax muy dem mais bu fekkee ne yow da ngaa ñëw yaakaar ci ñun ñu jël am lu am di la ko jox nga koy jox mbooloo mi ci sa ginnaaw yaakaar na ni dibbali nañ la parce que boba la nga don joxe na de sa poche mais tay damay yam ci rose rek mu nek un plus na notre travail plus bobu mu indi da ko ni ko Arma waxe 60 30 sac soble 30 sac pomme de terre Babacar mi moom jugdool na ci loxoom da biñ koy def ñu indi ko joxe ko tren bi ko waxate ñetti fan a ngi nii ñetti guddi yene mu ngi fi ñew laaj ñu fi nek ñu fi nek guddi ñep ñetti guddi mu ngi fi ñew Aline saw chaque jour mu ngi fi auto ma jëli won bagage kon yakarna ni ñun ñett ñi xam nga paano ndox day am ñaari jàppukaay ak li koy root léegi ñun ñett loolu la boo jàppee benn côté bi te jàppoo bi ci des paan bi këpp boo rootee te am amul amul mbalka ci biir ndox du ci dugg kon ñun ñett noonu la léegi nag ku biir ñëw fekk siñu muy Maman Rose ñëw na nag moom nee ñu léegi duma ma bàyyi sax ndox ndox di wadd dama koy tëj ñu egg fañ ko war a def def ko fa ñëpp gis seen bopp kon looloo war a tey jotaay bii bañ tase fi ñun ñëpp momit mu nek jigen ju bax nek jigen jambar wax ma bopam ñu dem waxtan bama xamé xam matul weer bama koy wo dem sen kanam yeen yep mais libre la ko def Babacar Pascal kër bi mu yëkkati 1 million den ko jox pour ñu taal lamp koñ bi fi dama ko def ñu ñep taxaw mo gën rek ku sañal ku ne bu la joxe nga jaar ci doogu ñew ay man xawma lool parce que japp na ni man limay wut ci ñii day ñew renforcer limay indi ci yeen mais japp ma ne ñom li ñuy indi day renforcer sama poste parce que bu renforcer sama poste ma yam ci li ma yor kon tey ñoom bu ñu taxawee pour jàppale leen yéen da ngeen a war a mën a taxaw tamit pour jàppale leen jàppale nit ki du maanaam appartenance politique kenn wax ko mais nit bu lay nekkalee danga koy nekkal parfois ma dégg fii nit ne ma ah, ah, ah, dañu kii wa Aliou Sow lii wala Pascal lii man Aliou Sow bu wootee wala sama xol seet du guy damay dox ci wetam ci laay yëg ni man dem naa ci bisam su ma ko soree rek dootuma bëgg dara ci bis bi parce que damaa bëgg ñëpp xam ni. li mu bëgg bëgg naa ko fu mu jëm laa gëm lu muy xool laa xool te ku ko laal laal ma ku ko mbëkk mbëkk ma ba loolu daal doon toog daal parce loolu mooy li ne ci kii nag moom du ma waxaat damay boo rek deux jours du deux mois du vingt ans kii li ñu boole dafa bari man maa xam li ma booleek moom moo tax kër ba mu tegee tànkam ku nekk naan du fii yëg du fee kan moo ko mën a tare nekk ci dëkk bi kenn. kii am Alioune Sow am Habib Kane kan moo ko koy tere nekk ci dëkk bi moom bu ko neexoon kër la tëdd rek ne Alioune alal Habib eh, na am na ñaari soldat capitaine baa ngi nii leen naa baa ngi amul ma dem te ñëw kon yaakaar naa ni ñun benn lañu kon ni ko Alioune Sow di waxee appartenance politique boolewuñu développement social moo ñu boole mu ñor Alioune Sow ñor Babacar Pascal ñor ma ñor Rose mi indi ko bér gi tëj ko ne na dëgër këj

dëkk bi mu dem ñu def ko teranga mu mu da cee réer ma réer ti maa ngi moom yëpp jàpp nañu dëkk bi ñuy terefal dëkku suñ dëkk la bokk ci biir région bi mais dëkk ba jur Jurbel la bokk tey ba ma fo demee ñëpp fa lañ fay def moom mii bañ ne ma léegi na ma ne dem leen gërëm ko bu ko waxul woon du ko am de parce que moom la xam nga nit ñi dañuy jaawale wërsëg ak poos jàmm natt poos ak natt wërsëg bokkul. seen wërsëg suñu borom ci loxo Alioune Sow la ko jàllale Alioune Sow sottil na ko ni ko ko gërëmee te yem fa jàpp leen ni fii ñu toog lépp lu fi nit jëlee wala mu am ko fi ci wërsëgam la Babacar day daan day daan doolem Alioune di daan man may daan Rose di daan bu ñu xam lu ñuy def ah ñun am nañ as tuut nañ jël li ñu am doole ci jàppale askan bi loolu askan bi ñu leen di indil suñu borom a ñu ko jox pour ñu war leen koo jox te dañ koo gëm te moo tax ñu leen koy jox suñu ko gëm loon duñ leen ko jox dañuy jàdd ak moom rek toog fa kon nag loolu nañ leen ko gërëmee te ñoom ñii ngeen ñaanal leen man de damay wax ni ci kaw jëru ñu wuti ñun kon niko alim saw di waxe lubah ko lu bax galaaj la bu de deug galaaj bu du deug nak mom jàpp ni du galaaj te loolu japp naa ni ñi gëm parce que ci deug lañu dem ci deug lañu def seen alal kon maa ngi leen nyep ñaan yéen ñëpp di leen ñaan ngeen ñaanal ma leen gërëmal ma leen parce que aw ñoom man kees ñaar ñi laa fi xoluma mak man li jintuma mak sal de lijeentu ma idris sek xawma kenn joxuñuma dara ñi la am ñom lay waxal ñoma jégué ñom la bëgg ñu bëgg ma ñuy and rose ñew nak né ma ka ma won leen lan mo ci def maniko lan la mu ne ma tejj na amul premier ministre amul président amul dara ñun ñoy suñu gouvernement gouvernement développement social voilà mu ngi nonu voilà gouvernement développement et social je voudrais euh... Euh, remercier du fond de mon cœur Madame Rose Wardini. Vous l'avez dit la semaine passée, à l'occasion de la conférence religieuse des femmes du mouvement d'Olimaki, elle avait pris en charge tous les frais relatifs au Ndogu. Et j'avais annoncé qu'elle sera là la semaine prochaine pour procéder à une remise de denrées alimentaires au profit des femmes tchessoises. Rose est une femme qui respecte sa parole. Euh, ça fait juste une semaine que j'avais annoncé cela et voici aujourd'hui Rose parmi nous ici à Thiès, avec mon ami et jeune frère Abib Khan, avec mon ami et frère le maire Alussaou. Euh, je reviendrai sur, euh, sur ces deux-là. Donc Rose est revenue euh, avec beaucoup, beaucoup de denrées alimentaires au profit des femmes de Thiès. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de remise de ces denrées alimentaires. Je crois qu'il faut d'abord se féliciter de l'entente et de l'union entre plusieurs personnes de bonne volonté qui veulent apporter un soutien aux populations, sans regarder les colorations politiques. Je pense que si vous regardez euh, autour de vous, je suis à côté d'Aluisson, qui est un maire de Réumi, qui gère la commune de Thiès-Ouest. Je suis avec une autre dame qui est du Parti Socialiste, celle qui a pris la parole tout à l'heure. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas les colorations politiques qui sont importantes pour apporter un soutien aux populations. C'est une bonne volonté, c'est un cœur, un grand cœur peut faire ce sacrifice. Et pour cela, nous remercions Rose Wardini. Euh, elle est maintes fois venue à Thiès faire des actions sociales, mais cette fois-ci, elle a pris l'engagement de revenir à Thiès en forme et en grande pompe avec euh, son, fils, je dois dire, Habib Khan, qui est notre jeune frère, et qui fait dans le social également, à travers le réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est une cérémonie euh, qui réunit des bonnes volontés qui sont venues apporter un soutien aux populations, et c'est véritablement l'occasion pour moi de remercier toutes ces personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à avoir cette belle cérémonie et à présenter les denrées alimentaires à offrir aux femmes de Thiès. Roger l'ai déjà reçu dans mon bureau en compagnie de, mon frère Habib. Et je crois que les propos qu'elle a tenus dans mon bureau, aujourd'hui, après euh, multiples euh, euh, je ne sais pas, euh, témoignage que les gens ont fait en son endroit. Et je crois que ça ne fait que renforcer ce qu'on s'est dit entre, entre dans mon bureau. Je crois que je marcherai sur la même langue que mon frère euh, Babacar, euh, qui a si bien expliqué que nous ne sommes pas là pour des appartenances qui n'ont aucune importance par rapport à ce que nous faisons. Parce que le Tout-Puissant Allah nous a dit qu'il nous a amenés sur terre euh, pour voir lequel d'entre nous est plus généreux en œuvre de bienfaisance. Donc aujourd'hui, Rose est sur ce chemin. Et sur ce chemin, elle a trouvé euh, un homme, Babacar Pascal, un autre c'est euh, euh Habib Khan et peut-être le maire Alusso et d'autres personnes qui sont sur le chemin qui nous rejoindront, qui, une fois conscients que ce que nous faisons, c'est un devoir euh, moral de le faire, mais aussi c'est par respect aux indications de tous les louvres saints. Nous devons apporter soutien à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous sommes sur ce chemin et gloire à Allah euh, que Dieu nous prête la force de pouvoir continuer ce chemin et aussi encourager toutes les bonnes femmes qui sont là, qui sont très braves, qui ont besoin de travailler, mais peut-être qui n'ont pas les mêmes possibilités que nous. Et là, nous croisons les doigts et rendons grâce au Tout-Puissant et nous prions pour que ces femmes aussi soient dans les mêmes conditions que nous. Si ce n'est pas elles, que ce soit leur, enfant, leur fils et tout ça. Et vraiment, euh, ce qu'elles font, elles le font avec tout le respect qui s'y est. Vraiment, elles ne baissent jamais la tête, elles sont là courageuses, prêtes à accompagner les services Puisque que les gens les, leur offrent. Vraiment euh, remercier Abib Khan qui vraiment a fait tous les euh, efforts qu'il faut pour que Rose soit là. Rose aussi est venue répondre à l'appel de Habib, de Babacar euh, et, de toutes les femmes de Thiès. merci à Rose, merci à toutes celles qui l'accompagnent, à son équipe et continuons vraiment à œuvrer parce que c'est notre devoir de le faire, mais aussi c'est une recommandation du Tout-Puissant et merci à tous ceux qui sont venus là. Vraiment, j'ai trouvé un homme formidable, un homme euh, très social, qui, dont les objectifs rentrent en droite ligne avec les miens. J'ai trouvé aussi ses collaborateurs qui sont dans cette même voie. Et je crois que le Sénégal a besoin aujourd'hui d'hommes de valeur. Et comme ils disent, sans tenir compte de l'appartenance politique, je crois qu'il est grand temps, il est grand temps de faire donc euh, vulgariser cette solidarité à travers tout le territoire national. Moi, je suis de Kaolack, mais je suis avant tout sénégalaise. Donc je me dois, ce devoir-là comble, Dans toutes les localités où vraiment je trouverai des, personnes de valeur, je serai prête à m'investir comme je l'ai fait. Mais je dois dire que cet accueil aujourd'hui m'a beaucoup ému. Je ne m'attendais pas à ça. Et donc je remercie le premier magistrat, je remercie Habib qui s'est battu, qui a tout fait pour ces populations. Je le félicite, je l'encourage ainsi que son ami Pascal. La politique euh, que, j'ai toujours menée à travers tout le territoire national, c'est-à-dire la politique sociale que je vais donc continuer à développer dans toutes les localités et particulièrement Thiès parce que euh, il est très rare de trouver vraiment des hommes qui s'investissent vraiment sans faille dans le social. Aujourd'hui, j'en ai trouvé un qui a beaucoup d'ambition pour Thiès, donc je suis prête à l'accompagner dans ses œuvres, comme toute autre personne que je trouverai dans une autre localité, puisqu'on est, comme je l'ai répété, avant tout sénégalais. Mais comme on dit, le Wolof dit, c'est important, mais aussi il faut se sentir sénégalais et se couvrir donc vraiment nos sœurs sénégalaises.